Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fedd indépendance moom la ko daan waxee kon gis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko am rek ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu ko ci lañ doon tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor la lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggal gi bi ñu koy wàcc lépp loo xam ne xam nañ ne mën na ak andi lenn ci jàll ko ngir sàmmoonteeg fi adduna toll ndax dañoo nekk ci biiru réew seq ko ñu bokk réew nekk ci biir adduna yi seq ko waa adduna kon mënuñoo bett ko ni ko Cheikh Mamadou Mountakha di waxee. mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko jii. yàlla def na ngeen xam fi àdduna toll tax ñu sotti ko def ko ci xarala yi ngeen di tudde léegi ñu ngi wax conférence ni mu ko defee ni nga ko sant képp ko xam ne mën ngaa jël masque bi di ko takk ñi nga xam ne na xëy ne am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam ne tax nañ jël kaala di ko muuru ndax laa dara la wala dirara doo lool te doo lool keneen loolu kon sëriñ bi mu ngi ci soññ ñëpp di ci sa soññ bokkitaal bi nga xam ne xam ne màggal gi bu sañoon ñëpp dañ fi indaale te bu ñu fi jugee itam eh, ak ñoo topp rek mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi am na jot nit ñi dañuy yokk kon war nañ see def yitte ngir xool nu ñuy fexee ba déwén naam demee mu bañ mu bañ ne defewaat yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yëpp résultat bi ñëw na mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee dooru suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i seetlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam ne daa dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana sopp lu bari ci ndox mi. mooy wàllu assainissement bi assainissement bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi. fa saa sa it la jox ministère bi ko war digal itam def nañ ca lañ ca war def ba jël budget bi vingt trois boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu Sëriñ ñu àgg ca jàmm génn ca jàmm bay ca tawfeex bay ca ndimbal te ñëpp it nañ ca ànd ak dalum xel ànd ca rafet jox ngeen xam ne Sëriñ Touba kat euh, mbiram suñu borom feggal na ko ci aafatu ak katu kon suñu xel wala ca